asalaamaaleykum waa senegal ma def vidéo bu ndaw rek ngi pour samay mbokk samay am di jàmm ak ñi ma bëgg te yàlla tax di dalal seen xel di leen wax ni waa ji ñu wax ni dañ koo garder à vue Kër Massar ci coowal supposé milliard bu ma dénkoon nit di leen xamal ni maa ngi nii sama kër ak sama biir njaboot nekk ci jàmm waaye leen xamal ni sos yu mel nii dugg leen sos nañ fi ne dama doon tukki ñu nangu sama passeport fekk boobu maa ngi ak sama njaboot di reer ñu woo ma wax ma ko sos nañ fi ni damaa lekk budget ministère sport ci ñetti weer tey ñu sos ni dafa am ku ma doon dénk un milliard ma leen di xamal ni sos yooyu yëpp nag am na yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yuy ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor judd fi ñu war a judd te duñ daw lu ñëw dinañ ko dégg sos yooyu yëpp nag te di xamal ñëpp yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yuy ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor juddu fi ñu war a juddu te duñ daw lu ñëw dinañ ko dégg te di xamal ñëpp ni man fonctionnaire la administrateur civil la de classe exceptionnelle liggéey ngir réew mi xeex ngir réew mi donc amul dara wala lenn loo xamante ni mën na maa détourner ci taxawal Sénégal ki wax wax ji nag yónnee naa ko citation directe ngir mu ñëw ci kanamu tribunal indi ay preuve am ndax bu dul man sax wax ni man damay téye koppar yu toll noonu ci sama kër yaa ngi mettre en sama njaboot te bu soobee bu buñ demee tribunal dinañu xam euh, wax ji lan moo ko wundu Sénégal yëpp xam ndax dëgg la wala du dëgg maa ngi leen di gërëm jërëjëf.